alors euh, ñu ngi ci actualité soopulu ñu war a waxtaanee ñaari point premier bi di violence préélectorale euh, des tiraillements à non plus finir entre hommes politiques euh, donc mu di premier point bi deuxième bi force doit-elle rester à la loi ou au peuple nga def ci ay points d'interrogation donc ñu ñëw ci premier bi violence préélectorale des tiraillements des tiraillements à non plus finir entre hommes politiques oui seulement dama dama dama dama c'est un peu dans la même veine que euh, ce qui se disait tout à l'heure mm. avec donc le le, le professeur kii. Euh, euh, Djibril Djibi Diakhaté euh, euh, parce que finalement on parle beaucoup d'instabilité dans ce pays parce que tout simplement il y a des gens ñu leen di woy ay hommes politiques ñu ngi xëccoo xëccoo nguur sans doute parce que euh, comme ni ko góor gi waxee woon léegi Diakhaté mooy dañu dañu dañu jëfuur ñoom ñëpp parce que ñii bëgg nañ téye nguur gi parce que tout simplement tout simplement nguur moom moo neex en Afrique et au Sénégal ñee bëgg nañ téye nguur gi parce que bànneex bi ñu nekk bëgguñu ci jóge et euh, il continue à vouloir conserver le pouvoir donc ku ci nekk sa morom jaral la lu nekk au détriment des intérêts des Sénégalais moo tax à un moment donné ñu ne est-ce que tiraillement yi yëpp jar na ko ci réew mi mais li tax ñuy poser question boobu en pensant que ni tiraillement yooyu jar na ko je pense que ni c'est dû au fait que ni quand au pouvoir on est bien quand on est au pouvoir on est bien parce que on a tous les avantages yi nga xam ne sénégalais yi ci kaw ñi war ñi ñi ñi ñi ñi ñi waroon mérité wala mbir mi ni mu waroon doxee du ñu ci am duñ ci profito parce que tout simplement ñi nga xam ne ñoom ñoo yor nguur gi ñoom ñooy profito ci situation yooyu moo tax violence électorale day am bu élection yi jegee sans doute parce que da ngay def ba jéem a bokk il faut nga bokk parce que ça devient une question de vie ou de mort parce que ci loolu rek la ñu mën a yaakaar pour am le confort bi nga xam ne moom la ñu soxla ci seen àdduna théoriquement et en principe nguur bu fekkee ne danga nga koy yor da da da nga war a bëgg ñëw nguur wala faire de la politique normalement sacerdoce la waroon doon coono la waroon doon te sax warul woon doon loo xam ne dañ koy xëccoo waaye bu dee ba ñu koy xëccoo noonu a ce point là au point que ni kenn mënatul imaginer ni c'est pour les intérêts des Sénégalais parce que finalement on sait ce que c'est qu'être un ministre de la République. Mmh. On sait ce que c'est qu'être euh, euh, un directeur d'une société nationale dans ce pays-là ou d'une agence ou même euh, euh, nga nekk un haut cadre choisi par décret présidentiel ou décret provenant de l'exécutif. Mmh. Donc yooyu ku nekk da nga ciy bëgg am te pour loolu il faut que nga politique. On ne pense plus à être un directeur général boo xam ne da ngay réfléchir pour des solutions nooy defee ba am une licence wala wut ay partenaires bitim réew yu lay permettre nga am. autorisation pour mën a yow société Kédougou yi nekk foofu ay tubaab yor ko yow nga wutal yow yow yow ñu jox la ko yow en tant que doomu sénégalais te waroon ko njëkk yayoo non on ne pense pas que ni peut-être que il faut que nga dem ba Mboro pour demander yow on est obligé société yooyu ñu jël ko jox ko ay ay ay ay ay ay ay ay indiens ak yi kenn xamul des des étrangers juste parce que il faut qu'on le leur donne qu'on le qu'on qu'on les leur donne parce que tout simplement ñoom ñoo ci mën dara parce que ñun d'abord pour dem wuti ay moyens capable wuñu ko état bi capable ko mënul jàppale sénégalais yi nekk fii donc ñun forcément benn yoon rek la ñu am pour gagner de l'argent pour être milliardaire pour am si on peut être milliardaire ici sauf que eh ben vous êtes milliardaire et mais vous n'avez pas de société boo xam ne am nga lu mat dix personnes ci biir on est milliardaire parce que tout simplement on a gagné un gros marché on devient milliardaire alors que théoriquement on devait être milliardaire tout parce que travaillé on est monté en crescendo en terme de bénéfice on a des employés qui qui travaillent pour ñun ñu sécuriser leen samay intérêt yooyu ak samay bénéfices yooyu may dajale moo may def milliardaire loolu amul ci réew mi wala c'est des cas extrêmement exceptionnels te loolu man wax dëgg yàlla loolu war nañ ko xoolaat ci réew mi

wala ñoom ñooy directeur ñiy defar euh, euh, loolu euh, bateau yi ñi nga xam ne société yi yi nekk fii ci réew mi nga xam ne il suffit juste de de de benn espèce de signature pour que vous vous retrouvez avec des petits des petites commissions comme ça en, en cachette de 500 millions de un milliard et cetera et cetera et c'est comme ça qui fait que et c'est ça qui est à l'origine de xëccoo bi nga xam ne moom mooy parce que ñoom ñëpp ils ont envie de d'avoir de l'argent te foofu rek lañ ko yaakaare parce que en ñan ñoo yor réew mi xaalis yi homme politique yi benn ñaar ñan ñoo ko yor mooy ñii di liggéey ak homme politique les hommes d'affaires yi nga xam ne ñoom la ñuy jox marché mais c'est extrêmement rare ici au Sénégal man gisuma fi di sociétés nationales di sociétés dans ce pays là privé ay nit ñoo xam ne dañu créer seen société euh, comme ni ma koy waxee chaque fois am ay employés monté en crescendo ils se retrouvent ay ak ay milliards parce que tout simplement ils ont un millier de salariés wala deux milliers de salariés dans ce pays là boo koy compter doo si indi vingt sociétés au Sénégal pour un pays qui a autant de ressources un pays qui a plus de dix-sept millions d'habitants je crois que c'est une honte te lii ñuy wax nii ba tiraillement di am nii dans ce pays là mm. c'est parce que tout simplement xëccoo bi moo metti parce que ci foofu rek lañ ko yaakaaree parce en plus doo si nekk di sonn parce soxla pour continuer à conserver son pouvoir ndax yow il faut nga dem ca population yi euh, am fa benn espèce su crédibilité entre guillemets bu lay bu lay permettre moom mu mën la woolu pour xam ne ni foofu yow yaa ko moom pour moom mi nga xam ne moom moo jiite ndax moom tam mu mën a continuer di conserver le pouvoir donc c'est un jeu de dupes ils se chamaillent tous ils s'arrachent euh, euh, les les les euh, Euh, les signons euh, pour que tout simplement eh ben euh, essayer de faire en sorte de continuer ñi nekk ci nguur gi à rester au pouvoir ne ñi pour tout simplement récupérer le pouvoir parce que booy set man pour man ci réew xeex bi waroon na am dëgg dëgg dëgg dëgg xeex bi waru woon woon am en tant que c'est c'est rek au moins ñoom ñëpp ils ont un au moins un point commun mooy ils ont ils ont envie normalement parce que ñi ngi def politique de faire en sorte que le pays puisse se développer donc ku si nekk da ngay indi say xalaat moom ay contradiction moom am ay ay tiraillement même ci wàllum xel ak xam-xam ba nga xam ne ils pourront euh, en définitive trouver un terrain d'entente bu leen di permettre ñoom sa terrain d'entente là d'arriver à trouver une solution boo xam ne moom mooy indil ngëneel si réew mi mais pourquoi ils s'arrachent comme ça et pourtant booy xool bu ñu arraché woon ba pare nii ba xeexante ba pare mais dañuy juboo et dañuy juboo quand je pense que ni bi muy jógee fii bi ñu koy gagné il avait 36 ministres dans ce pays. Hmm. bi son dernier gouvernement Abdoulaye Wade quand il est parti <clears throat> il a eu ses 34 ministres sont partis avec le nouveau régime parce que tout simplement le prétexte c'était que il faut ay dem jàppale diw. loolu di créer benn loo xam ne dañ koy waxte nit ñi di ko di ko ŋàññ muy cette transhumance là parce que tout simplement il faut aller du côté de là où ça va mieux et le prétexte c'est ñun ñëpp dañu war a jàppale suñu réew alors que normalement confrontation bu dafa waroon continuer kooku ñu gagné mu servir d'expérience par rapport ak perte bi mu perte élection yi que mu jàng si préparé ci pour éventuellement revenir au pouvoir pour que ëllëg moom loolu erreur yooyu mu defoon mu bañ ko defati ba pare bu nekkee ci opposition bi non seulement mu reconnaître ko ba pare jéem a retrouver euh, euh, réfléchir sur des solutions mm-hmm. yoo xam ne moo koy permettre ëllëg éventuellement bu dellusiwaatee ci nguur gi mm-hmm. man daal vraiment loolu man man ma xalaat ni tiraillement yi pourquoi. est ce que na ko est ce que jar ba di rey ba di ba di reyante. ba nit ki di wax ak nit ki di di moom après da nga naan est du comédie parce que. Mm. man dama gis ñoo xam dañu doon xuloo di njëkkante naka su dul noonu. Mm. mais après du jour au lendemain ils se retrouvent parce que juboo nañu. Mm. mais lan moo tout simplement léegi ñoom ñoo bokk ay nouveaux intérêts. da bëgg a citer exemple Barthélémy Diaz ak Macky Sall wala. mais entre autres ñoom ñëpp yàlla ka Mimi Touré. pourquoi pourquoi ils font ça et quand je disais que ni diw diw diw diw tàlluñu ko quand ma doon xas diw mais man su ma dellu si waatee comment je vais le regarder. mais violence préélectorale bi Aliou so est-ce que gisoo ni dafa am lu ko lu ko lu ko lal d'abord ba pare. loolu c'est un pré préalable boo xamante ne tant que lijjantiwu ko Sénégal day tagatem ba jafe-jafe xamante ne ci la ñu ne non duñ ci jóg tant que lijjantiwuñu loolu est-ce que nii pour régler ce problème véritablement nag il faut ñu lii la ñuy jëm ñi ci d'accord d'accord ci xool ban solution la ñuy demee pour régler ça mais sama loolu waxtaanuñu si gars yi bëgguñu si waxtaan même buñu demee ci dialogue bi que xam nga lan la war a lijjanti mooy mais toi tu es président de la république ëllëg mm-hmm. mais est-ce yow xam nga doole bi nga am yoo xam ne yoon moo la ko may. Mm-hmm. te kenn mënuñu si dara ñu war a nag wax ñu dellu si ci ay principe de de règle de droit respecter l' état de droit mais état de droit boobu di ko respecter mais da nga koy respecter des fois par contrainte parce que da bëgg a nekk démocrate mais en réalité dafay metti parce que li li nekk ci biir li li tax li tax li tax nga war ko respecter loolu à la mu baaxul et pourtant homme politique doo dégg mukk ñu siy waxtaan. moi j'ai toujours dit que ni un président de la République. mais ngay gis ñu naan il faut ñu ñu wàññi pouvoir parquet bi yooyu ay proposition la yoo xamante ni par exemple ñu ngi koy def. waaw donc am na loo xamante ni même bu la ko loi mayee aussi comme ni ko professeur waxee. waaw sa jom jom ak sa ngor ak sa jom war la ko mën a xañ. mais mais seulement man man man gëmuma ni gëmuma ni ay ay jom dès l'instant que ñu commencé di dugg ci eeru euh, euh, euh, siècle bi ñu nekk nii am ouverture nekk village planétaire gëmuma ni léegi nit war na nit man nii mën na wax dara bañ ko def. xam lu tax mais c'est grave mais oui c'est grave. mais est-ce que li may wax du dëgg mais est-ce que li may wax du que man nit ñi. non mais ñu demee ba egg foofu laa. non c'est c'est plus que grave. c'est-à-dire mais léegi si man benn yaakaar rek laa am mooy tënk teg ay institutions yu wóor yoo xam ne même si vous êtes mauvais de mauvaise foi seulement yow institutions yi boo ñëwee yow yaay dal ci kawam te dafa daf lay écraser yow institutions yi moo lay écraser gis nga Barack Obama dafa mës a wax wax bu dooy waar mais bon am nañu am nañu si jàpp xel ñu si bàyyi xel mu ne mu ne mu ne ñun africains yi dañu soxla ay institutions yu fort gis nga institution boo ko amee boo ñëwee doo ko mënal dara. président Macky Sall aussi euh, bon Macky en tant que candidat 2012 bokkoon na ci dans son programme la réforme des institutions. mais doo ko def. non def na ko waa la commission nationale de réforme mais, des institutions. mais mais mais mais applicabilité bi. mais en ah, les relations entre le parquet et l'exécutif mais est-ce xam nga ni au Sénégal fii bon théoriquement on dit qu'il y a trois pouvoirs bon quatrième muy presse. mais au Sénégal benn pouvoir moo fi am. non dimbali ma rek nga dindi ci presse bi. non non non non day ne quatrième pouvoir mooy presse. waaw mais dañ koy dañ koy wax noonu euh, xamul tax non baax na sax ci benn ci xam nga lu tax parce que aussi euh, da wax ni ñu dina dégg tu extrêmement franc loolu euh, c'est une forme de pouvoir. mais officiellement laay wax trois pouvoirs yi laa mhm. yooyu yi wax nii nii pouvoir législatif pouvoir exécutif d'abord législatif mais mais mais mais c'est pas vrai mais ça n'existe pas. Hmm. benn pouvoir moo am ci réew mi le pouvoir exécutif. Hmm. yeneen pouvoir yi ils sont sous la tutelle du du pouvoir exécutif mooy le pouvoir judiciaire. Hmm. et le pouvoir législatif te loolu. mais loolu loolu kan moo ko mën a weddi ni au Sénégal le pouvoir exécutif donc à sa tête le chef de l'État. moom moom moom justice. mooy fal euh, ministre de la justice. ben oui. ah euh, tête de liste assemblée nationale aussi ka ka fay nekk seen kii moom moo koy. fal kaaw assemblée nationale leer na. voilà mhm, leer na dem nañ élection ba ñëw ba pare lan moo xew. Mm. mu ne diw mooy nekk président assemblée nationale. Mm. loolu pouvoir la kan moo ko wax exécutif moo ne diw yow yaay jiite assemblée nationale. non législative bi c'est discutable parce que peuple bi mën na. rajouter man loolu. li ma ci bëgg a rajouter xam nga Sénégal dañoo tàmm di ne conséquence conséquence mais les causes lan moo waral tey jii ni ñuy àgg ci violence bi ñun ñëpp fekkee nañu euh, peut-être mënuñu wax ay atum 88 parce que waxoon nañ fi amoon na ay année blanche amoon nañu fi jotoon décédé indépendance ba tey ji nii diggante euh, Léopold Sédar Senghor ak Émile Badiane diggante Léopold Sédar Senghor ak Mamadou Dia mais ñun jamono ji diggante Macky Sall la ñuy wax ak Ousmane Sonko ndax moom lañ fekkee mm-hmm. aujourd'hui il est leader de l'opposition pas compétiteur nga ànd moom nga bañ a nga ànd moom wala nga bañ a moom mm-hmm. euh, au début gis nañ ne euh, Ousmane Sonko dafa indi di euh, débat débat la fa doon indi. Mhm. xam nga ku nekk indi mais chaque fois bu bëggee yóbbu gouvernement bi ci euh, ñu waxtaan. Mhm. la nga xamante ni moo xew réew mi mais moom réponse au lieu ñu indil ko réponse politique mais dañ koy indi benn réponse ba nga xamante ne ay di ko tàmm lu ne. di mhm. ko di ko giñ lu ne. et du coup à jeunes yi dañoo dem ba amatuñu nopp maanaam am am gëmatuñu. Euh, autorités yi nga xamante ñoom ñoo fi toog. parce que on ne peut pas comprendre tey ñi tirer benn jeune. à balles réelles mu décédé après on se revient euh, ministère de l'intérieur bind ni arme blanche. Mm après waaw après ñu jékki-jékki encore ñu non non finalement dañ ko rey après du coup jeunes yi dañuy dem ba maanaam euh, la nga xamante dañ koy dégg te amut day bëri ci seen nopp du coup ñoom dañuy dem dañuy ne ñoom seen destin ñoom ñoo koy jëlal seen i bopp. à préciser mhm. arme blanche boobu ngay wax ba tey ministère de l' intérieur mi ngi campé ci. waaw euh, euh, arme blanche mais famille ki nga xamante ni ñoo di Keita. Pape Keita ñoom arme kii bi dañuy mhm. logique bu mu nekk parce que mi ngi wax ne que le pouvoir su ma xamul le deuxième point là ci loolu est-ce que bi c'est au peuple mhm. bu force restera à la loi est-ce que c'est la force du peuple wala c'est la la force de mhm. l'exécutif force doit-elle rester à la loi ou au peuple je pense que ni mm. euh, euh, euh, la force doit rester à la loi parce que la loi c'est le peuple qui qui l'édifie peuple moom mooy teg ay loi am au travers de ses représentants ñoo xam ne ñoom la yónni pour ñu teg ay loi ce peuple laa il faut que ñu yóbbu ko ci benn niveau buy permettre ci ay waxtaan moom mu ne léegi à partir de do euh, un exemple ah. à mm. partir de dorénavant tey président dootul nommeeti moom kese aux emplois civils et militaires. Mm. par exemple un exemple ah mu ne moom léegi moom peuple bi mu ne man peuple sénégalais bëggatuma président di nome aux emplois civils et militaire moom kese. parce que non seulement du euh, c'est c'est ça ça euh, c'est ridicule moom kese benn nit parce que au cas mu juum amul parce que non seulement il le fait mais il le fait de manière discrétionnaire mun na def nommer benn nit te du laaj kenn xalaatam te kenn du ko laaj du tax nga def lii daf koy def point barre te loolu ci démocratie yu ñu toll nii doolu dafa war a jeex ci réew mi un un président de la République ne doit pas toujours man en tant que peuple hein, je dis ça au cas comme moi ñu ne yow peuple yow yow yow président de la république quel qu'il soit aujourd'hui oh yow léegi loolu bu du boobu gis nga boobu day tax mandat sax ñu ko waxati xam nga parce que dootoo ko jot parce que xam nga doo xëccoo di nguur parce que dangay xam ne boo fa ñëwee euh, euh, euh, vous êtes limité. neex neex yi doo am yaram moom da ngay jeex parce que da ngay liggéey. mais di nga jeex mais di nga stressé parce que tout simplement yow léegi doo yeewooti nga ne man xulos laa bëgg a. nommé nommé directeur général du port autonome de Dakar parce que tout mm. simplement man xulos laa fa wóolu parce que man li ma bëgg man ñuy def ci biir port bi. xulos mm. laay ko nommé bu boobaa. dafa doon ay non seulement appel à candidature c'est une mais aussi dañ koy dañ dafa am un système d'aller-retour c'est-à-dire que yow président de la République yaay jël euh, euh, euh, proposition nga ne man de bu doon sama sago yéen assemblée nationale jox leen ma ay nit man ma jox leen ay nit ñu xool ci nit ñooñu kan moo ci gën a apte ngeen créer une commission au niveau de l'Assemblée nationale. ngeen xool kan moo ci gën a apte pour ñu nommer ko c'est un exemple. parce que port li boo gisee ma joxe port je le dis pas par hasard maa ngi ñëw ci ñoom. Mm. Euh, euh, dans les jours à venir. parce que li fa xew doy na waar trop te te na dayoo. léegi bu nga ne léegi nga ne nga ne man nga ne man léegi man euh, DG port boobu bu ñu ko naree nommer. yow président de la république doo choisir ku la neex da ngay choisir ay nit ñun ñu choisir ay nit ñu créer une commission par exemple ci beneen pouvoir boo xam ne assemblée nationale la nekk te ñoom tamit dañ leen di fal. Mm-hmm. ngeen toog waxtaan ci. trouver ay solution réfléchir ci yaa leen xool commission boobu ñan ak ñan ñoo koy représenté ci biir commission boobu. Mhm. ngeen teg ko waxtaan ci réfléchir ci teg ay choix. par exemple am ngeen dix personnes ñu leen jox ngeen ne trois yi ñun de bëggoon nañ ñu waxtaanaat ci yow président de la république day jar ñoom ñu def commission boobu après gis président de la république loolu lu gaaw la ngeen teg ko waxtaan ci ne léegi ñun ba déggoo ci kàddu ne kii dinañ ko jël parce que raison yii ñoo ñoo tax parce que mën na ko parce que am na ay capacité mën na ko parce que am na moral mën na ko parce que am na jub na te dina liggéey réew mi te dina doon intérêt mm. yow da ngay xool da ngay nommer xam nga moom mooy tutelu port. waaye waaye DG port bi yow. yow yow yaa koy nommé. Mm-hmm. moom moom DG port bi moom faalewul ministre de l' économie maritime. waa léegi loolu loolu loolu loolu ana assemblée nationale. boobu bi voté loi bi waaw waa déet. mais loolu mooy affaire bi. mais yooyu ci yooyu ci yooyu man laa bëgg ñuy wax ba nga xam ne. Mm. solution il faut mu am très rapidement. seulement mm. mm-hmm. pour que loolu mu jeex fii parce que bu loolu bu amee rek kenn dootul xëccooti te ku nar a ñëw xam nga ni sacerdoce la ñëwoo pour wut ay intérêt wala wut pour ay da ñëw pour sacrifier sa réew. bu boobaa. alalu réew mi tamit xaalis yi fi ñu ko nar a distribuer mm-hmm. marché yi ni ñu ko war a joxee mm-hmm. boobu tamit kenn dootu ko joxetee noonu dafa am ay commission yu leer nañ mais loolu transparence la ah <laughs> en tout cas. loolu kenn du ko wax ci dialogue ah. tegal ñu tegal ñu bokk sa loxo bu suba loolu du am ci dialogue bi non en tout cas li li am ci dialogue bi bëri na te waroon a mën a lijjanti problème mu réew mi Aliou Sow ñu lay jaajëfal. kàddu yi amoon na solo 25 minutes la ñu actualité mais waxtaan be neexoon. Mhm. ñu lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal aussi team du jour bi nga xamante ni ñoo nekkoon sur le plateau waaye di jaajëfal aussi téléspectateurs yi nga xamante ni depuis ce matin ñu ngi sur euh, matinale bi léegi ci noonu aussi ñu jaajëfal ami ni fii waaye spot fii aussi ci YouTube bu Walfadjri tata Ajaratu Penda Diallo Gueye la force tranquille Amina Bodian bañ a dugg bi ngi métti Amina Bodian ne <laughs> ko dugg bi mi ngi métti sama biir ba tey en tout cas maman Ami ñu ngi lay ziar bu baax a baax depuis les Parcelles Assainies donc euh, ñuy ziar bu baax aussi ki nga xamante ne moom Issakha Diagne naa baaba Babacar euh, Lo Babacar Diouf Keba Torodo ñu leen di bëggee bu baax a baax di leen jox euh, dig daje ëllëg incha allah très très bonne journée